la théorie de la mélanine boobu ñu bëri doon jéem a développé naa nit ku ñuul ak mélanine moo tax euh, corona du ko jot kon léegi nañ ko jël teg ko ci suuf ñu corona du jàpp nit ku ñuul kon léegi wóor na leen bir na leen ni corona dana jàpp nit ku ñuul parce que xëy na boobu ba tey ay nit ñu weex ñoo doon ñëw ay nit ñu weex ñoo doon ñëw léegi nag gis nañu Sénégalais boo xam ne Sénégal la juddoo Sénégal pur sang la dafa dem Italie jëlee na fa feebar bi indi na ko moom ci boppam am na feebar bi jabaram am na ko ñeent membre de sa famille am nañ ko ñooñu ñëpp ay Sénégalais lañ kenn du ci tubaab kenn du ci kon waxu nit ku ñuul du am coronavirus kon boobu léegi nit boobu daanu na dañu d'accord ci loolu nit boobu moom daanu na nañu d'accord ci loolu ñëpp lay jàpp corona xamewul nit ku ñuul xamewul nit ku weex xamewul nit ku jaune na mu lay jàppeek nag ak nu muy def ak nu muy dugg lan moo tax mu jékki-jékki tal fii loolu nee naa bu subaa incha allah am nañ jël nañu rendez-vous ba pare ak docteur Boubacar Signaté lépp loo xam ne wàllu médecine la wàllu digle la fu situation bi toll parce que nee na léegi Sénégal mi ngi ci étape deux parce que mi ngi doon wax ni par benn benn lañ doon am ba ñu koy maîtriser te jii nag ba nga xam ne amoon nañu toute une famille boo xam ne mettre nañ leen en quarantaine ñeent ci ñoom am ko kon fu mu toll nii affaire gën na sérieux Sénégal léegi bu gënee sérieux nag ñu war a moytandiku ñaar yi gën na sérieux ñu war a gën a mun a fagaru gën a mën a fagaru na da ciy bokk ni. ah am na yenn gëm-gëm yoo xam ne xëy na du du gaaw a deñ du gaaw a deñ ndax ñu bari tey ah, ñu ngi nekk ci internet bi di bind akawax naan boo jëlee ñetti xal tàngal ko mu tàng def ci paanu ndox maanaam ah, ñooñu ils sont dangereux pour la société ñooñu ils sont dangereux pour la société ñu ñu war a bàyyi xel lañu wan Sénégal yi ni la ñii boo leen dégloo ñu indi leen seen musiba te sax xam nga nit ki yenn saa am na toll foo xam ne tiitaange dina ko yóbbu ci loo xam ne lu ko waaye digal rek mu def ko lu ko waaye digal mu def ko surtout yàlla bu nekk koo xam ne nit ñëw tiim ubbi alxuraan indil aaya alxuraan naan la yàlla nee na yonent bi nee na léeg léeg léeg léeg lii boo ko bindee boo ko defee ni mun a la saafaraal man jàpp bokk naa ci ñu gëm ni naam Sénégal ñu tedd nga fa ñu jàng nga fa wante it bu fekkee alxuraanul karim bi benn la lan moo mun a tax sénégalais rek mun a am secret bu lay protéger contre coronavirus te Iran amuñu ko te ma nga fay def lu doy waa lan moo tax ñu jàpp ni ñun ñoo gën a mën a maîtriser courant bi que waa Qatar coronavirus baa nga fay def lu doy waar ñoom fu mu toll fu ñu toll ci ay bañ nañ ko ba Iran sax dafa jël léegi dogal ni léegi julli àjjuma ci moske yi tere nañ ko ci dëkku yu rëy yëpp ku nekk na nga julli sa kër rassemblement fu mu toll moom la ñuy bañ kon ñooñu nga xam ne ñun gënuñu leen a jàng alxuraan. ñun ñi xam ne ñoo ñu ëpp plateau technique téeméer yoon ñun ñu gën a développé ci yenn côté yi bu fekkee noonu dafa feebar bi di def yenn ravage yi waxuma laax ak ñun. waaw euh, Pape Sagna wax nga dëgg war nañ leen wax euh, fan la italien boobu jugee ndax yéen a ngi foofu foog nga wax ngeen dëgg foofu moom wax ngeen dëgg waaye nañu bàyyi xel ci naam ay jullit lañu alxuraanu karim rek lañu am waaye bu ñu ay nit bu koy gëmloo tey nii lii ak lii ak lii moo koy saafaraal lem day daal di am xëy na saafar lépp ci kër àdduna mi ngi alxuraanu karim loolu dëgg la wante du ci ay euh, tufli raay ak euh, dafa naan nañ def naan nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon ñooñu it nañu nañu dimbali rek bu ñu amee ay secret waaw nañ ko ñaan parce que kuy ñaan munoo garanti bu fekkee Bournois Diop dafay ñaan kon kay mënu laa garanti lu wér moo dafay ñaan dafay ñaan sunu borom su ndax mu nangu ko wala nangu ko moom rek la soob kon loolu war nar naa gokk ci lu ñu gën a nar a sonal lu ñu nar a gën a sonnal bokk na ci koo xam ne dafay ñaanu pour le bëgg laa garantil mun ta ne ñaan ñu àndul soit da ngay ñaan wala da ngay garanti dégg nga kii nee na un ami vivant au Sénégal m'a proposé de manger de l'ail pour me protéger du corona xam nga loolu mooy kon ñun ñu ñoo ëpp la laaj waa ñu ñun ñoo ëpp laaj waa ñu ñoo ëpp laaj waa Iran ñun ñoo ëpp laaj waa Italie ñun ñoo ëpp laaj waa Amérique set mentalité sénégalaise là bi nga xam ni lépp bëgg na ci am raccourci moo ñu nar a sonal parce que moo ñu mën a sonal mooy dégg ngeen barki démb euh, taalibe boobu doon def vidéo naan créé nañ fi Euh, choléra nee na ay jamono créé nañ fi choléra ngir tere nit ñi màggal tere ni créé nañ fi Ebola ngir tere nit ñi màggal léegi indi nañu corona ngir tere nit ñi dem Porokhane loolu la wax carrément kan moo war a nekk foofu pour di créer yu mel noonu pour tere nit ñi am seen gëm-gëm déedéet ñun kay ñoo war a am suñu ngëm gëm wante it xam ni la science et là pour jàppale ñu tey bu fekkee ni jëloon nañu suñuy matuwaay taalibe boobu xam ni moom xër na ba jëlee feebar bi waaye bu ñëwee tey dem nuyu sëriñ ba wàllu ko sëriñ bi nag du lor sëriñ bi ak ñeneen ñi nga xam ni euh, ñoo fay ay taalibe te ñëw na dem na ziare sëriñam ndax jox na ko loxo toog ndax gis na ko gisu ko wóoruma waaye hypothèse pour hypothèse déjà feebar na parce que corona bokkul ak euh, euh, Ebola wala yeneen feebar yi ñu bëri dañu yaakaar ni foog mu daaneel na pour nga koy mën a wàll keneen déedéet borom xam-xam yi nañ demeewul noonu boo ko xasee ba am même boo xam ne tëddaguloo développé gu la feebar bi mun nga koo wàll nit mais bu loolu subaa incha allah danañ ci dellu siwaat bu baax ak ki nga xam ne mooy docteur Boubacar Boubacar Signaté mais ci li nga xam ne ñun mun nañu war mun a artu mooy gëm-gëm yooyu aussi war nañu koy façonné liir naa sama benn mbokk tijaan ne ah ñun de du ñu tere euh, euh, euh, nu mu tudd sax ah, non du appel bi du ñu tere def euh, gàmmu gi euh, corona da dina dox doxam ñu dox ci kawam corona dina dox doxam ñu dox ci kawam mu ne ko ah boobu mi ne ma waaw waaw xanaa déggoo sëñ bi nee na lii ak lii ak bul ñu ko defee mu ne ko mun naa la fàttali lenn de mu ne ko pes ba mu diggee Sénégal ma naa ma ne ko sëriñ saa ngi fi woon. peste ba mu duggee Sénégal mën naa am na ko lislaam a ngi foon te doomu wax ni ñii fi nekk tey ñoo gën a xam ce que l'islam que ñi fi nekkoon boobu te il a fait des milliers et des de morts c'est des milliers et des milliers de morts naam nag ah ku mu neex ne damay dem ci appel ba appel baa ngi noonu yaa ngi noonu ku mu neex na da dem ci euh, ziar ba Tiwaawan mu ngi noon mi ngi ñëw yaa ngi ñëw ku mu neex ne da dem ci Kazu Rajab ba mi ngi ñëw yaa ngi noonu mais votre responsabilité et engagée par rapport à la propation de l'épidémie ah il faut que mu leer naññ nag benn waaye def ma saa ku nekk na nga gëm sa gëm rek ku gëm ne nga gëmul ni corona bi gëm na ni euh, mun naa dem ziar nañ ko bàyyi mu dem ziar na dem ziar waaye bu fa yóbbee feebar bi bokk na sa responsabilité et engage waaye yow nga am sa ngëm ñëw wàll ñoo xam ne gëmuñu amel nga leen àq ci kanamu borom bi amel nga leen àq ndax na artu nañ la wax nañ la xam nga ñun dañoo doy ñu Sénégalais dañoo doy waar waa ji je n'ai rien contre les mourides je n'ai rien contre les tarixa aussi waa ji nee na dafa dem Porokhane dellu si ñoo dem ma ah sama waa ji lu ma la waxoon ne woon naa danañu dem dóor corona bi dellu si te euh, coow du jib naka mu dem nañu dellu si te déggoo benn coow ci corona <laughs> ma ne ko saawaay ma ne ko li ngay wax wóor na la mu ne ma fa déggoo fa benn coow ma ne ko ci tey ndax démb ngeen dem ñëw tey est-ce que xam nga ni corona bu la jàppee ñaata fan lay def si sa yaram pour ñi mën a xam ne yow mii am nga coronavirus pour feebar bi daaneel la du moins feebar bi daaneel la mais tey jii mun nañu tester en deux trois jours kenn kenn am nga ko teel a anticiper euh, balaa la feebar bi di daaneel jëm ko dindi sa yaram mais pour mu daaneel la ñu xam ne yow mi kat lii corona moo la daaneel quatorze jours presque deux semaines lay jël te ci deux semaines yooyu premier jour ba nga ko amee ba keroog mu lay ba keroog ñu lay jëlee fa nga ne koo laal koo jege wax ak moom ci yenn distance yi loo laal wàllu ko moo xam chaise bi nga toog la moo xam bool bi nga laal la moo xam kuddu bi nga tegoon la ki nga doon lekk la moo xam nit ki ki ki nga embrassé waaw comme que yaa ngi fay soog a jugee démb yow xam nga ndax wàll na la wala wàll bi xamaguloo ko fii ak foog ñu am ay fan ñuy soog xam ndax effectivement daan ngeen ko wala daanu leen ko waaye tey war nga am nañu preuve que ni ñoom daanuñu ko ndax ka bàbbeekoo Italie ñëw na fa jox na ko fa ay nit xam nañu d'abord ay waa këram nee nañu contact euh, contact yi mat na soixante onze ci lu ñu xamagum mooy moom waa këram mais moom bu fekkee ni jot na fa nuyu ay yeneen taali taalibe nag jot na fa nuyu sëriñ ba nag taalibe yooyu ñëw nuyu sëriñ ba ku ci nekk après jugaat dem ci yeneen région yi foofu la propation bi di doyee waa foofu lay doyee waar moo tax naam gëm nañu ñi nga xam ne ñooy sunu tarixa yi ndax amoon nañu njëriñ wante it am na loo xam ne tey war nañ ko xoolaat di ñoom ñu leen di ñaan ñoom it ñu leen di ñaan ndax xam naa ni jàpp naa ni état du Sénégal moom amul sañ-sañu ne dina fi annulé benn manifestation religieuse du Yoff du Tiwaawan du du du du Kazu jàpp naa ni état du Sénégal amul boobu sañ-sañ am na sañ-sañ bi mais amul fit bi boog du moins taxaw ni lii dama koy aaye jàpp naa ni état du Sénégal tollagul foofu te pourtant Maroc tëj na Fès Fass tëj na ko interdit na bépp manifestation religieuse France gis ngeen ni à Paris je crois que jëloon nañu disposition que ni léegi toutes les prières vendredi interdit nañ ko jusqu'à nouvel ordre Iran ñoom it ndax ñoo leen gën a gëm ou pas loolu suñu borom rek moo ko mun a seede kan moo gën a gën moromam waaye lépp loo xam ne julli àjjuma la interdit nañ ko bi ordre lépp loo xam ne rassemblement la parce que foofu lay gën a gaawee bu ñu demee ba lu ci mel ni États-Unis dama leen jox benn exemple ñu ngi soog a jël mesure bu drastique bu mel nii nine eleven romb na fi mu am dëj bu metti ba tey seeni euh, jéem bu ñu ko daldi euh, maanaam cancel tey NBA cancel na suspendre na ay activité baseball suspendre na ay activité collège yi nga xam ne ni ñoom it basketball suspendre nañ li nga xam ne moom mooy seen activité gis ngeen conséquence économiques yooyu nit mënu gu leen ko wax fu mu toll nii parce que bu leen fàttali ne télévision yi fayoon nañu seen droit de transmission ba pare sponsor yi fayoon nañu genn wàllu joueur yi garanti woon nañ ñeen xaalis ay milliards c'est des milliards c'est des milliards c'est des américain bu demee bu jël mesure bu drastique bu mel nii kon yow xoolaatal sa bopp kon yow xoolaatal sa bopp moom dee daanu ko tax a fomm maanaam catastrophe bu ne am na fii ci réew mi daanuñu tax a fomm mais bi yoon ils ont pris les devants xam quelles conséquences économique yu énorme yu nekk ci ginnaaw seeni mesure mais ñu jël ko ndax xam na ni xamatuñu effectivement parce que dañ doon ni bu diw jógee ay bu jóge xamatuñu léegi fan lay virus bi di jóge xamatuñu ko parce que ñaari joueur professionnel basketball am nañ ko te génnuñu jëriñ euh, jëriñu États-Unis ñaar am nañ ko te génnuñu États-Unis donc xamatuñu léegi virus bi fan lay jógee bañ na ñu aéroport yi boo fa demee façon script bu nekk dinañ ko fa def terewul affaire baa ngi dugg si moo tax ñu ne léegi xaaral nag comme que dugg si na te xamaguñu fu muy jógee léegi nañu fexe ne ko lañ koy maanaam jëme maîtriser bu mu konnee di law bu mu konnee di law ndax law boobu mooy indi musiba waaye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo am yenn plateau médicaux yi mu am ñu ay technique yu relevé xoolal li dal Italie xam nga Italie bu ñu amoon genn wàll ci seen hôpitaux yi daw bay bëgg a dee kon tey jii nii lii nga xam ne nag ni ñaanuñu ko yàlla nga dégg ni cinq régions mbaar maara de Italie xalaat ko sax man dafa may feebar wallaay laasi xalaat ko sax dafa may feebar kon ñun ñoo war a fexe ba moo xam ni daaka la Medina Gunaas moo xam Kasu Rajab la moo xam appel laayen bi la moo xam ziar général Tiwaan moom bi la état bi dafa war a jël ay responsabilité am waxtaan na kilifa yooyu wax leen lii nga xam ne moom mooy danger yi ci ne Serigne Saliou Bousso nee na la màggal Porokhane le mars la moom Modou bi mu ngi ñëw Sénégal la nuit du 6 au 7 mars kon loolu lu ci yoonu poroxaan ah waa baax na comme fekkee demul Porokhane mun na fexe mun na bañ a fexe euh, fekkee ma màggal bi waaye dem fa te nee nañ dem nañ fa sëñ Modou waaye comme que loolu nga wax ah wasalaam nañu njort ni am njort rek ni ah demu fa. ñëwu fa wante de munoo fu te tey tey tey tey tey tey tey tey di ñeent juróom-benn nit feebar nañu ca Touba juróom-benn ci li ñu gusigum di xool contact yépp nag mettre leen en quarantaine kan moo ci nar a feebar ku ci narul sëñ Saliou Bousso loolu moom loo ciy wax nga ne lu ci yoonu Poroxaan kon nañ ci génne Poroxaan bo waaw kenn bu bu kenn bëggul ñu tudd ñu tudd fi nga faat ah baax na nañ ko ci génne kon man léegi tuddatuma Porokhane boobu wante fii nga xam ne moom wóor nañu ne am na ndax sañ nañ koo tudd sëriñ Saliou Moussa Touba de juróom-benn nit a yoo xam ne tey feebar bi wàll na xanaa loolu sañ nañ koo tudd boobu wala. ndax ku ci nekk jàpp nga ni rek ni buñ ne feebar bi si diw dañ lay jox xar bi baaraam dañ lay jox xar bi baaraam te pourtant non dañuy artu rek ngir bañ mu mu law law bi foofu la musiba bi ne bu jugee ci benn cité religieuse bu mel ni Touba mara day taani bu demee ci benn benn luuma imaginer mu dem ci benn luuma mais Guinée loolu moo leen loolu moo leen sonn lool ak feebaru Ebola Libéria loolu moo leen sonal lool ak feebaru Ebola bi Sierra Leone loolu moo leen lool ak feebaru Ebola bi wante feebaru Ebola bi au moins foog nit ki am feebar bi tëral ko mu mun laa wàll mais bii moom xaaru xaaru mu tëral ko na am rek commencé ko mun a wàll donc nit ki mun na ñëw ci famille boobu ka xam ne am nañ ko kenn mun na fa jóge dem ci benn marché saafonte fa nit nuyu ko kooku am ko te xamaguñu ko xamaguñu ko parce que tëralugu ko kooku mun na faa jóge dem ci beneen marché wala dem ci benn restaurant laa la fa ak nit wala dugg ci benn kaar wala dugg ci benn njaga njaay wala benn bis laa la fa nit est-ce que xam ngeen conséquence économiques yi nekk ci France tëj ay école am <coughs> ndax xam na ni fu mu nii léegi affaire bi nekk dafa gën a sérieux est-ce que xam ngeen conséquence économique yi président États-Unis taxaw ne waa léegi vol bépp avion bu jógee Europe du fi agsi benn rek euh, euh, euh, Britannique rek ñoo ñoo fi mën a ñëw boobu perte wante lan moo tax ñu jël ko xam nañ ni nag ne mbir mi te pourtant même président boobu moo toogoon temps yi ci ginnaaw ne ah lii de léegi mu dem hmm? ay na ñaan nee na le problème c'est le suivi on a un exemple il faut arrêter dès à présent les rassemblements et tout mieux vaut prévenir que guérir je en phase avec toi grand Amar il faut parler au Sénégal il y a des des ignorants non xëy na ñàkk du mën xam na xam nga ngëm comprendre nañ ko nit ñi xër nañu lool wante nag bu ñu fàtte ni ah bu ñu fàtte bu ñu fàtte ñi waxoon ni daan nañu feebar bi. feer bi léegi ñëw na Sénégal kon ñu doon wax ñu jàpp nit ki ñun ñëpp léegi loolu suuf xam dootul dëgg ay ñaan nañu ko tere am a ah, kuy ñaan ma mënoo garanti da ngay ñaan su ma bëggoon tey ay na dama bëgg nga may ma cinq cent mille francs ñang baaloo xam naa ne am nga ko ñang baaloo <laughs> te soxla naa ko it <laughs> loolu mooy dax gi naan waxaale sa soxla <laughs> ñang ba ki dem ko jóge Paris indaale nga ay euro xam naa lool ndax ñan naa ay na cinq cent mille war na maa na a pousser ma dem lépp kenn cinq cent mille ne ko ay na dana ma may te ay na wax may loolu ay bu la waxee ne dana may même su ay da waxee dana la may benn mag bu baax mu see wax ni bokk na ci ñàkk gëm yàlla nit dégg la nga baal wu ci dig boobu dem dem def leneen kon yow ku la mayagul amoo benn garantie ni may nañ la au contraire am na ñu indi ni mayaguñu ndax ginnaaw ba ay tubaab commencé bi indi euh, feebar bi ci ci réew ma te dañ doon wax ni ah ñu ngi ñaan yàlla mu protéger réew mi ñu ngi ñaan yàlla mu protéger mi yàlla war nañ ah bugg naa leen protéger de waaye am na loo xam ne foog ngeen def ko ndax feebar bi dugg si na ñu ne ay tubaab la ñu ne ay benn cas la ak ñaar ñu ngi koy maîtriser waaye ñu jékki-jékki rek en une en deux ou vingt quatre heures quarante huit am six cas six confirmé confirmé lañu wax. ñooñu nag ñett ñu ñu demalanteel ñu ñu laalanteel ñu ñu dugalanteel xamaguñu ndax jot nañ ko wala jotaguñu parce que yenn saa nga am ko ñëw dugalanteel nit amu ko parce que premier français bi ñëw waa amuñu ko deuxième français bi ñi mu euh, jagalante amuñu ko troisième bi nga xam ne dem na fi sax ba ba benn anniversaire ña ñu ki woon ci anniversaire bi yëpp amaguñu ko mun naa am wante xam nga dugalante tubaab ak dugalante nit ku ñu bokkul ndax man danaa ñëw ñu ne la bul joxe loxo nga ñëw joxe loxo di nga mbëkk di nga di di di di di di nga embrasser di nga dem marché ba laal pomme bi laal laal laal laal laalaat bàyyi jëloo keneen ñëw laal fekk yow mii am nga seen bi laal nga ko bàyyi nga ko fa parce que boo ko amee moom loolu laal bàyyi ko fa oto boo dugg bàyyi ko fa. oto boo dugg bàyyi ko fa loo laal bàyyi ko fa noonu la virus bi soxore loo laal bàyyi ko fa oto boo dugg bàyyi ko fa foo toog bàyyi ko fa waa imagine ngeen soixante onze contact yooyu yëpp fan lañu dem ak lu ñu def ci diggante boobu basan yi ñu toog laa yi ñu tëdd lal ñu tëdd nit yi ñu dajeel te foog état bi topp ñu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp état de Washington loolu wala mu gisoon ba fu mu toll ñu ngi ci ay parce que xamatuñu kan moo ko am am fu muy jóge kon nañu bàyyi ndiku bu ñu bàyyi ndiku di moins bu ñu bàyyi ndiku mbir mi du caaxaan c'est très sérieux wallaahi azim il faut limiter les rassemblements wala les interdire tout bonnement ba keroog euh, solution di am nee na surtout que ni ko je suis ton ton roi ma may cinq cent mille bëgguma sa bos bu bu ay dañaa laa bëgg xanaa loolu leer na bëgguma cinq cent mille bu ay dañaa laa bëgg Samy Sow day jeex nañu delluwaat xel yi am nañu yaakaar ci sunu diine am nañu yaakaar ci sunuy tarixa am nañu yaakaar ci suñuy njiit wante nañu jàpp ni lii gën na sérieux loolu yépp lii gën na sérieux loolu yépp suñu demee ba naagu nag jàpp ni ñun alxuraan gi ñun rek ñoo ko xam ñun rek ñoo ko maîtriser ñoo ko gën a xam sax waa Arabie Saoudite ñu tëj seen kaaba ne kenn du fi ñëw bu ñu yaakaar ne ñoo gën a maîtriser Coran bi waa Iran ak li ñu def ci dégâts bu ñu jàpp ne ñun ñoo ko waa Qatar ak li ñu fay def ci bërkaati démb rek euh, ñoom kot nañ deux cent cinquante huit nouveaux cas euh, Qatar bu ñu jàpp ne ñoo gën a maîtriser Coran bi waa Égypte ndax mu ngi fay commencé law waa euh, Algérie mu ngi fay commencé law Maroc moo fay commencé law ba roi bi décidé na fi mu toll nii lépp li nga xam ne manifestation religieuse la tere na ko fees ba sax jaar yi amatul tëj nañ ko. Iran ne lu julli ajuma nu foo fooree ci jullit ca jàkk ñu ne julli ajuma ci notice bar la julli ajuma mooy rassemblement ba ak gëdd gi am. ay autorité ne waa léegi kon voilà wa baax na naam am na gëdd tiyaaba ba ma macha allah wante seen bakkan yi ñoo ñu leen gënal pour bu weesoo ngeen ñëw mën a julli waat kon toog leen ngeen julli seen kër. ñu ci bàyyi xel mbokk yi hmm? nee na li ngeen di wax lii yëpp gouvernement Sénégal wax fi Moodu Moodu bi dëkk ci tuuba ak ci Italie yaakaaruma ñu def ko nag Pape Sagna parce que tamit euh, mënu laa wax fu mu dëkk ci Touba gars yi commencé daw quartier boobu commencé stigmatiser waa quartier boobu loolu yaa am amul benn autorité bu koy def même fii yu son dañu naan ah am na ay cas yu am par exemple man Aris ni bii ma dëkk fii ne nañu am na ay cas yu fi am duñu wax ban côté lañu dëkk duñu wax ban hôpital lañu ne duñ wax dara seen identité te lool tamit mooy dëgg parce que tamit panique bi yow mun nañoo ko wax ngay jéem a daw ñoom fu ñu dëkk ba daw dugal sa bopp ci loo xam ne maar day taal a aw ma yaakaar ne dañ ko waxee. man ne yow Samy Sow te nga téye sa cinq cent mille te bàyyi ma man boo ay dañaa laa bëgg loolu kay wax naa ko ba noppi. nee na en plus il y a des super contaminateurs Amath Diouf ah bon loolu mooy lan super contaminateur waaw loolu moom xam naa damay bàyyi ba suba incha allah ci kàttan borom bi bu ñu dajee docteur euh, Boubacar Signaté mu wax ñu ñan ñooy super contaminateur lu bees la lu lu ñuy jàng ànd Abdou Sidi ñu ko jàngal depuis France nee na a super contaminateurs kon bu subaa bu ñu dajee docteur bi parce que lépp loo xam ne terme technique la rek ak médical man amaat damay bëgg ba bàyyi ko ñi nga xam ne ñoom ñooy professionnels yi mais bu sabaa dinañ ko ko laaj mu indil ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, définition boobu. Mariam Ba Ndiaye nee na dëgg neexul Sénégal pays bu naqaree defar la au lieu ñu xool conséquence ak impact bi mu mun a am ci population bi feebar bi c'est sérieux wax dëgg neex yàlla mais toujours les mêmes problèmes amal. Amath Diouf li nga wax la dëgg la jërëjëf njaay jaata Ndiaye mbàpp loo wala Ndiaye jaata Ndiaye Mariam Baye Ndiaye jërëjëf Mariam ñu lay sant bu baax di gërëm ci loolu euh, laay ba di nee na y a des Sénégalais qui croient pas à cette maladie c'est le droit le plus absolu laay c'est le droit le plus absolu de pas y croire euh, Pape Ba il est difficile de concrétiser de conscientiser les Sénégalais sur ce problème xam nañ ko de Pape maa la gën a xam ni il est difficile de conscientiser les Sénégalais bu ñëwee ci religion surtout ci tarixa xam nañ ko bu baax mais nag waslu àq boobu foog ñu def ko ñoo la gën a xam ni c'est un problème crucial ñii ñu nga lay cippatu ñee ne da dof ñee ne kii euh, amul xam-xam di wax xam nañ ko de bu lu jëm surtout ci tarixa non xam nañu fu ci Sénégal yi toll bu fekkee ni dañu bëgg lu si ak ci ñun bu ñu gisee dara ci politique bi wax ko bu ñu gisee dara ci sport bi wax ko lii bu tolloo dara ci waslu suñu àq bu ñu nekk magum xamoon naa ko waaye magum waxoon naa la dañ ciy wax waslu àq laay ñoo la gën a ah xoolal euh, ba sëñ Bamba Ndiaye génnee ni mooy ba ñuy wax waxu étudiant chinois yi ba mu génnee ni ah yonent bi da jàngale woon ni bu dëkk bu feebar amee fenn bu fa kenn dem bu fa kenn jóge ay imam sax ba imam Iran doo jug da dal ci kawam a ah tey am na dëkk ci ñun ñëpp am na dëkk ci ñun ñëpp parce que feebar bi jugoo fa jóge ci biti la jóge Italie France pap xam nañ ko nee on doit prendre la mesure de tout arrêter même la France ne voulait pas le faire disant que l'Italie exagère maintenant on n'a plus le choix une pandémie généralisée ici l'État doit prendre ses responsabilités loolu la Anna Abdou Ciss wax euh, c'est là où le bât est-ce que l'État d'abord yaakaaruma am na sañ-sañ ñëw ne euh, euh, la la nu mu tudd Yoff Layeen ci général wala Kazu Rajab bi wala diw arrêté a yaakaar mu amuma yaakaar mais au moins mu dawal diplomatie jël les devants dem waxtaan ak kilifa yooyu waxtaan ak kilifa yooyu xam xamal leen lu ci ne parce que gars yi ñoom kenn mun leen tere bàbbee ko Italie dem dem am na am na sam benn xarit bu nekk France moom nee na ma kenn mënu koo tere jóge France dem dem euh, ziar général xalaatu ko sax xalaatu ko sax am na koo xam ne nee na carrément ñun kii la ñu bëgg mu rabuñu bu ñu demee foofu ba feebar bi dab ñu mu dee ñu fa kon kay euh, texe nañu xam nga ñooñu moom doo doo leen wàññi ñooñu mënoo leen wàññi Amadou Mahtar Malick Mbow nee na le gouverneur de Washington a interdit toutes les manifestations toutes les manifestations de plus de deux cent cinquante personnes et état d'urgence effectivement l'état de Washington ah oui Athènes moom nee na le coronavirus a fini par démontrer la prise en otage de ce pays par des forces religieuses sans science Athéna nag yow toi tu dois arrêter quand vraiment tu dois arrêter tu dois arrêter vraiment sérieusement tu dois arrêter quoi ah qu'est-ce que cela veut dire de parler sans science que cela veut dire quel ton problème avec les tarixa quel ton problème avec la religion au Sénégal nii nga defoon wax fi ba ñu ñu ñu attaque yi seen waa kër au moins pense à ta famille Athéna noonu xam nga noo tudd ci kër àdduna parce que gars yi wane nañ fi sa photo ci ci Facebook bi wane fi partout ba tey ta famille a reçu des menaces mais ngir yàlla pense à ta famille et laisse ces euh, famille religieuse là tranquille xam nga dem ma rëcc pour man changer nga de discours quoi pour ma au moins tu avais appris ta leçon yow yaa ngi France euh, personne ne peut mais ñu dem bu menacer seen waa kër mais nga xalaat leen tuuti ci ci seen agissement ak ah, amoon Ibrahima Thiaw feebar amul sëriñ amul dara ah loolu dëgg la. léegi daal mbokk yi ne li ñu bëggoon wax lu àq rek loolu moo nekkoon sunu yóbbalu tey. doon ci waslu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na yàlla sàmm Sénégal yàlla na yàlla saafaraal jàngoro ji yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na suñu borom sàmm Sénégal yàlla na suñu borom saafara jàngoro ji ci képp àdduna fu ne yàlla na ko sunu borom sàmm wante it nañuy fagaru doyen Idrissa Sylla nuy naa lu bare bare moo doyen nuy naa la Binet Thiam sama camarade nuy naa ko di leen ñaanal yàlla wante nañuy fagaru fagaru bu baax a baax a baax a baax a baax a baax léegi rek laay toog sama jabar booba ne ma ah dégg nga ni Spring ASD nee na xale yi dañu waroon reprendre lundi poussaat nañ ko ba le vingt en attendant moo tax ma ne bu fekkee les grandes puissances ñooy barricadé wu ne bu kenn génn toog leen jël leen le maximum rek ngeen toog seen kër yi xanaa ngeen sànni ñu ñaan ñun moom mënuñoo bañ a dem ndax taxi si ñuy daw si la ñuy yaakaar di ñaan yàlla suñu borom mosoon ñu ci di ba fakoor tamit di di raxasu fu ñu toll client bu génn ñu pompe pompe ak Lysol pompe ak Lysol pompe ak Lysol jëli beneen ndax buñ ko defulee du ñu teg cin bi na caam moom ma digoon dina ma fi ne chèque moom ak Anna caam ak Pape Virginie pour ma toog benn un mois waaye chèque yi accès gul xam nga mun maa ñàkk bañ dem manam jong bi na caam mais dafa am benn càmminam bu nekk Atlanta foofu moom moom lay gën a faral di di di di di defal teraanga kamban mi bi nekk loolu dara rafetu ci ah madame Diong nañu rafetal diggante yi waay nañu rafetal diggante yi hmm? <laughs> na na Yaya Diallo jël kurus Yaya Diallo de Yaya Diallo de boobu de kurusu kurusu kurusu rege maan <laughs> waaw kon incha allah bu subaa ci kàttanu borom bi ñu dajee ki nga xam ne vingt une heures euh, la ma jox rendez-vous heure de Dakar ah vingt une heures docteur Boubacar Signaté ñu waxtaan ak sur la situation au Sénégal mais surtout gën a ñaax nit ñi ñu gën a xam feebar bi parce que sànq damay waxtaan ak benn euh, soxna su baax ci euh, ci internet bi mu ne pourquoi ñu jël mesure yu drastique yi te jëluñu ko woon ci Ebola yi ma ne ko déet bu ñu comparé bokkul bokkul. d'abord conditions yi bokkul feebar yi bokkul ak di muy propagé wu bokkul parce que bii lu tax mu danger mooy xamul dootu xam leen fu muy jógee doo xam leen fu muy jógee dañuy jékki-jékki del diw diw am na ko doo xam fan la ko diw jëlee moo tax mu dangereux kon bu ñu comparé kon liñ ci war a xam yépp incha allah ci kàttanu borom bi yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm dañ ci waxtaan ak bi Boubacar Signaté mbokk yi kii na nekkoon seen xarit seen doomu day Amath Diouf depuis son Texas dina ñaan jàmm di ko sàkku ci yéen àddina incha allah